ku bëgg jàmm da ngay def jàmm waaye sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al daf ni woon bu jàmm xewee ku wax ay yaa waaye ku jëm ci yow ak ay boo defee jàmm yaatooñ tooñ que lu mu la def yow lu mu la def yow la dafa am nag lu fi xewoon 2019 te bi muy def xew 2019 tegewu ko fenn lu dul làqatu def ko ci panier rejet parce que bu ngeen fàttalikoo dafa amoon cinq candidat cinq quatre candidatures acceptées ak vingt deux rejets mu jël xaali kaawu Khalifa Sall def ko ci rejet yi bu ngeen ko seetloo sax ba le lendemain la ñu door ne noo xalifa amul problème mu parrainage mais problème mu dossier judiciaire waaw koo xam ni yow yàlla dogal na sa casier judiciaire dara newu ci vierge na koo xam ne taxaw nga verser sa costion costion ba versé woo ko par la poste demul fenn da nga ko versé CDC nga ko dugal CDC di démembrement de l'État ñu accepté ko nga jox la say këyit jox la say fiche de parrainage fiche de parrainage yooyu document officiel la nga am sa quitus fiscal war a nekk candidat ñu bàyyi la nga pare ne ba pare parrainage yi jeex moom baa du parrainage ba sax dafa révélé lu tax sa waay tiit ndax moom depuis parrainage yi pare la dooree ñëw ñu ni rejeté nañ bosu xalifa Sall ak bosu Karim Wade waaye yooyu c'est pour des raisons judiciaires ñu dugal ko ci keesu rejet yi daal ne am na 22 yu ñu rejeté kenn xamul kii la kenn xamul kaala ba ca ëllëg sa ñu door ne xalifa loolu moo tax ñuy artu nag validé wuñ ko de dañuy artu artu bi ñuy artu moo di élection législative yi Khalifa Sall mii mooy président conférence des président day bokk élection législative yi ku ko déggul jottali ko ko nee ko Khalifa Sall day bokk xëy na ba muy président taxawu Sénégal mën nañoo def lu leen neex tey nag Yewwi Askan Wi moo portel Khalifa Sall candidature am ci législative yi ñooñu ko porté woon waaye boobu du même contexte bi ñooñu démocratie la ñuy defendre parce que lii dafa bokkul ci démocratie bokkul teguwul ci yoon donc m 2 comme que dañuy toppatoo dañuy defendre démocratie ci Sénégal loolu moo tax ñu porté woon ko ci seen point 6 gannaaw bi ñu porté lu concerné Sonko ci point 3 bi ba pare parce que booba sax waxuñu xalifa rek dañ ne xalifa ak monsieur Karim tey nag m 2 mu ngi leen di wax ni décidé na ni président wu conférence des président même su bëggul bu yeewi askan wi c'est vrai de ma préciser ni président de la conférence des président bu yeewi askan parce que nag dafa am solo dëgg la ndax buñ ne yeewi askan wi rek dafay suggérer beneen taxawaay est-ce que bu boobaa ku ñuy yab la wala ku ñuy yab est-ce que yeewi askan wi war nañ ko yab bu ñu nee yeewi askan wi rek bu boobaa borom na defaruwaat parce que du ku nu yeb du ko yeb lu boppam loolu moo tax c'est important ñu présider ñu préciser que c'est le président de la conférence des président de yeewi askan wi ma teerale ci loolu ndax boobu yeewi askan wi laay waxal yeewi askan wi ñoo ne ñoom ñëpp nag dans toutes ses composantes ci structure yi mu am yëpp ci yi mu am yëpp ci collectivité ya mu nekk yëpp fii ak diaspora ñu ni président mack Sall dootuñu la may ngay def lu la neex Khalifa sàll mii dafay bokk ci élection yi incha allah ndaxte mënuñu waxtu wu nekk ngay def dara ñu dëkki nangu dévoyé nga conclusion wu CEDEAO wax nañ ko léegi duma ci dellu siwaat diaspora bi ba nga jàppee ni am nga ci doole da nga ñëw yaa leen moom la ca jot a rëcc sax euh, jaaxal na la tey bi nga xamee ni moomatoo diaspora bi nga ni diaspora bi nañ ko wàññi wala ñu dindi ko du fi amee mu ngi ci yoon wi ndax seeni carte yaa ngi ko téye def nga rétention de carte au niveau de la diaspora euh, euh, commission yi nga xam ne ñoo waroon a wër def révision yi nee nga benn commission du wër parce que ministère bi amul xaalis loolu defal lu la neex waaye lii moom am na ci loo xam ne dootuñu la ko may dafa taxaw ndax xalifa Sall mii loolu samay wax la man dama nekkoon maire moom mu nekk maireu capital te mbootaay gi ñu amoon muy association internationale des maires francophones maireu capital bi ak président des maires ñoo ciy bokk mais Sénégal ñu ni comme am na parité dañ ñu mayoon ñun ñeenti maire yu jigéen ñu bokk ci ma ànd ak moom AMF balaa Delannoye di wax dara laaj ko te ba léegi aan ci loolu la nekk kuy meeru pari ku nekk moom ngay jàpp ni mooy sa point focal au niveau de l' Afrique waxuma la Afrique de l'Ouest ma ànd ak moom CGLUA marocain yi ñoo ñëw seet si ma ci sama suite ni ma dañu bëgg yow mi nekk sénégalaise nga taxaw wax te booba ministre des collectivité nga fa woon machine Sarr boobu moo moo nekkoon ministre des collectivités yàlla dogal waxuñoo ak moom man mii lañ waxal ni ma xalifa bëggatu ci dara booba Johannesburg la woon mu ni ma ñu dem africité ñu ni ma bëggatu ci dara mais dañoo bëgg CGLUA moom mu continuer nekk secretaire général kii nag dañuy wax ak moom teel parce que bañul dara buy bàkkoo président union africaine dama ni ñun faalewuñu loolu parce que bala ngay nekk président union africaine dangay ngay respecter union africaine xalifa bi ñu koy démettre mu ngi nekk secrétaire généralu CGLUA CGLUA moo yore les les les collectivités et gouvernements locaux booba la xalifa moo nekk secretaire général ba siège ba nekk Maroc bi ñuy demetre xalifa boobu mu ngi nekk répondant ay AMF donc loolu kooku su bañul loolu su bañul def loolu su bañul yàq deru Sénégal ci loolu pour des af comme pour des complots politique ma ñun itam bu ndee rusul tàggi du rus quand le le le mal a toutes les audaces le bien doit avoir tous les courages moo tax dinañ ko dénoncer dinañ ko wax fii wax ko kër sëriñ si wax ko ci mbedd mi roote ji ko ci robine ba demee ko marché naane ko attaaya